عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين wa ala aalihi wa sahbihi wa man daa bi daawatihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yawmi ddin subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim mbooloo mi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu dogitu resu Cheikh Ibrahim yi fi toog di sant di gërëm suñu baay suñu sëriñ suñu royukaay Cheikh Mouhamadul Qarashi Ibrahim Niass ci kàddu yu rafet yi mu fi yëkkati yi nga xam ne dara taxu ko jug lu dul am wareef boo xam ne yàlla daf ko teg ci seen loos ñoom mooy ne mbir mii wu baay la buñ dajeeg baay ëllëg gis ci loo xam ne jaarul yoon te waxuñ ci buñ dajeeg baay danañ ko layoog moom moo tax ñu ngi lay sant di la gërëm ci kàddu gi sànq maa ngi koy wax na ko démb damaa nekkoon ci benn géew xam naa da yaa ma branché li ma doon wax démb ndax xaw naa samandaay li nga fi wax waaye nag dafa jot dafa jot payu Cheikh Ibrahim bi moo war a gën a organiser ñëpp ndax suñ sëriñ dafa organiser woon gis nañ kannaache mi gis nañ agenda mi dëkk bu mu wàcc dana ko bind lu mu def dana ko bind lu mu bëgg santaane tamit kayit yi mi ngi fi wane ne nangam dem na sax ba li mu bëgg ci année bi ñaan yàlla sax daf koy bind wane na ne at bii nangam laa bëgg ku am sëriñ bu mel noonu war ngaa organiser loo munti am tamit taaliba bàyyi ak lu munti am nga xam ne bàyyi mooy sëriñ loo ci munti am tamit cër la bu la bàyyi jox bu ko teggee rek nga dem sëriñ bi sànq wax na xaw ma kooku kooku doon wax xaw ma kan la de waaye yaakaar naa bant bi dal na ko waaw bu doon ooteel boppam léegi mu xam ne mbir mi mbiru baay la Cheikh Ibrahima Niass nag nañ ko jox cër démb maa ngi wax ay nit ma ne leen man dama dem ba foog ne maanaam ñëpp a ngi am seen gëdd ci faytu bi waaye bàyyi joxuñ ko cër ñëpp a ngi am seen xaq li ñuy wër ñoom ci faydu ñoom ñu ngi koy am am na ñoo xam ne xaalis lañ bëgg ñi nga am xaalis am na ñoo xam ne taalibe yu bari lañ bëgg ñi nga am taalibe yu bari waaye ana cëru bàyyi baaba toog na bés alaaji bàyyi ci budd ma bàyyi ma teggi toog na bés am ay nit yu ñëw ku dugg rek na ko man taalibe diw laa keneen dugg na ko man taalibe diw laa ba mu paree baaba tourné na leen man li ma bëgg xam ci yéen mooy ana taaliba bàyyi ci yéen man ma diw mooy sama taalibe waaye taaliba bàyyi bàyyi ci boppam dafa effacé boppam sax wax ne moom kuy naan ci faydu bi Cheikhu Tidiane mbubbu Cheikhu Tidiane ngay sol bu fekkee baay moo effacé wu nekk képp kuy askanoo baay danga war a effacé wu benn góor day wax mu ne man nit bu dem ba toog di wax ne li fi am yëpp mën a xëy di ooteel boppam benn mbir bu ndaw ci àdduna bi kooku xebalu xeblu na boppam kooku xeblu na boppam moo tax yàlla ñu yàlla dimbali bañ nekk ay taaliba Baay ngi ziyaara Cheikh Mouhamadul Amin ci bërëb bi di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam may ko wër yàggal ko fi lool sëriñ bi man maa ngi ñaan di wax ci làmmiñu ñëpp na sëriñ bi bul gedd àdduna bi soxla na la ba léegi am na yu bari yu bàyyi wax yoo xam ne sotteegut te am na yu bari yoo xam ne yow yaa ko war a sottal kon bul gedd maa ngi jéggalu it ñi déggul arab xam naa damay wax li oustaz wax rek ne ku ko déggut na ñaan li mag ñi daan ñaan ne sëriñ bi ñaanal ñu ñu am ay njaboot ñu ko dégg xam naa ne nag bu ñëpp déggoon arab moom ma am problème ndax ay jaxase rek laa fi def waaye nag sëriñ bay ñoo santoon fu ñu war a wéyee ñu wëy moo tax xus isa alwisaali shawqan wa addi jizyat alxubbi walmashaacira abdi xus isa alwisaali shawqan wa addi jizyat alxubbi والمشاعر أبدي يمما كعبة المعاني وكيل الشيخ في الحب والوصي بدعدي يمما كعبة المعاني وكيل الشيخ في الحب والوصي بدعدي kun min alwafdi kay tanaala ridaahu inna nayla ridaa damaanun li wafdi him bidaadin huyaama cheikhi bidaadin laa tubal bisiwaara baabin wa hindi raddidan yaa wakiilu jinaa nurajji nayla kulli lmunaa wa kasbi attahaddi yaa aminan ala alquluubi wa yaa man qad qadaa umrahu wafaan li ahdi yaa muhibban lilmustafaa بلغ الآية في الشوق والغرام ووجدي ذا المعالي والمكرمات إمام الذاكرين الإله في كل نجد علنا علنا من بح من نبع المعارف مما كنت قدما رضعت من ثدي بدي علنا من نبع المعارف مما كنت قدما رضعت min sadji baddi wasqina min bahri almaarifi shahdan innana sayidi natuuqu li shahdi ayuha saa'ili an alcheikhi aqbil walqi sam'an ta'ub bi xayrin wa rushdi innahu aayatun min aayaati barhaama almufadda wa innahu badru saadi innahu jaamicu almahaamidi kullan waarisun lilkamaali fardan li fardi ma aliftu saxaa mithla saxaahu laa wala rushda indahu mithla rushdi raada mundu siba mawaaridi mawaarida izzin lam yuawwil li nafsi ma laysa yajdi raada mundu siba mawaarida izzin lam yuawwil li nafsi ma laysa yujdi dikruhu balsamun yudaawi quluuban sadi'at min siwa al ilaahi al mumiddi sal uluufan atawhu min kulli fajjin بلغوا للمراد من دون كد مدهم قادهم إلى الحق جلى كل أكدارهم بحب وود زاويات بنى مساجد أنشا فائقات أجلها بيت جدي زاويات بنى مساجد أنشا فائقات أجلها بيت جدي كان ربعا لكل قلب مريض جنة في ربى مرابع نجدي kaana dikrul ilaahi fiihi yudawi kulla waqtin axliq bi jannati xuldi hakada xaaluhu bi kulli biqaaci alardi siyaani fiihi hindun hindin wa sindi ayuha alqarmu yaa mithaala taaxi yaa sabuuran ala almasaa'ibi jaldi ji'tukum raajiyan qabuulan wa nasran wa ictilaa'an kadaaka tajdiidu ahdi fashhadu sayyidi bi xubbiya fiikum inna xubbi siwaaka aynu taraddi fashhadu sayyidi bi xubbiya fiikum inna xubbi siwaaka aynu taraddi faqbalan sayyidi iltizaami wa ahdi wahdini sayyidi bi rabbika ihdi raqini dallini tawalla shu'uuni laa tadarni fi lkawni arfulu wahdi cheikhu kallat qariixati an madiixin raa'iqin fastaartu aalaafa hamdi ahmadullaha an baraani ladaykum xaadiman bal wallahi ahqara abdi ahmadullaha an hadaana ilaykum laysa illa al ilahu lil xayri yuhdi salli ya rabbana wa sallim ala man huwa xayru al ibadi afdali abdi tashmalu al ala wa sahaabi dawaaman ma haraqna al midaada fi hibbi dahdi حق قدره ومقداره العظيم عليك صلاة الله تم السلام فطرح